waaw waaw barke Seydina Mouhamad sagal nga nu yàlla la yàlla sagal xam nga ni CPGE convergence patriotique pour la justice et l'équité nga jox ko yëre bu zone barke Seydina Mouhamad loolu xandeer la bu demee ci war tukkiwul dafa ñibbi xoolal ma lii waaw village kontaan ci fekke lii demal taxawee ne ndax Adja dama dëkkal def ay teraanga di fa def lu baax mhm. nam mu mhm. ak mu wéetal ñu ci koor gi mhm. tax ma gëddoon tey seet si ko ndeysaan kon bu ma ñëwee fekk ngeen koy defal teraanga ji mhm. damay xam ni Adja xamul fu mu ne rek lii la fa laa ilaha illallah laaw la ca laa ilaha illallah ah bu tuuti la waa Talla Mbaye newoon na tubaab du wax ku deful dara barke alxuraanul karim président demal na lay Talla Mbaye newoon na merci baat bu tuuti la waaye tubaab du ko waxul ku deful dara barke yonent bi sagal nga daayira siddiqu waroo fa waaye loo fa def sëriñ Abdoul Aziz Al nga ko defal sa soppe boobu waaye Demba borom sama doom bi mën ngeen ko jox ndax lu ngeen jox Adja mën ngeen ko jox waaw tabarkalla tabarkalla tey bi ngay ñëw billahi boo yorul woon dara waaye sa sourire rek ak sa yaatal nga sa kanam ak délégation bi ngeen àndal doy nañu sëg jox ma enveloppe boo xamante ne ba ma ko yóbbu ca ko yenu barke yonent bi yàlla nga téeméeri at ci barke yonent bi seer Seydi Mamadou Mansour ak sa njaboot njaamat Demba Diop si yàlla yàlla teg ñoom loxo ci barke alxuraan yàlla yàlla boole leen ci milliardaires yi Seydina Muhammad waaw. Adja lu muy def ba Demba Demba Diop si taxaw gisatul leneen moom mooy Baye Fall. ndeysaan waaw bëgg jëkkëram man laa ko gën a bëggee ak fonk jëkkër. ndeysaan. Adja bu fa paa bi aaye estevoir ku nekk ci quartier bi di nga xam ne Adja amul jotul kenn. ndeysaan ndeysaan ñu ngi lay ziar waaye ñu ngi lay genre li ñu gën a neex tey nag suñu bis bi nga ñëw ànd ak bu sol ay yëre yoo wax waaye indil ñu barke alxuraan loolu mooy firndeel ni yaay yaayu daara ji waaw yaay yaayu daara ji taalibe yi ku nu wax yaay yaay sunu yaay dee nga ndax xam naa leen waaw am nañ caay-caay goo xam ne ku nu xool ban la yaanu jur barke yonent bi dee nga moo tax ñu ngi lay ñaanal yàlla nga fi yàgg ci barke alxuraanul karim waa daayira Siddiq wal Wafa ñun ñëpp kontaan nañ ci yow bég nañ ci yow lool la ñaanal bu ñu sañoon nag lii ñu la defal ca digg mbooloo ma lañ def ñëpp xam ne defal nga nu teraanga bu mat sëkk kon yàlla nga am téeméer ci barkent ñu ngi la koy ñaanal jërëjëf euh, na ñaan ñaan. yàlla mi am koy yàlla na ma leen fayal. yàlla mu nekk suñu jëntoon koor. dama koy fekkee di fekk si jàng di dem ñu ñu si si amiin yaa Allah merci beaucoup merci beaucoup Adja